ñun lépp lu ñu mus a def rek assumé nañ ko ñun mosuñoo bañ jaloo wax naa la ko ca réew mi bi mu nekkee ci jafe-jafe moment wu cri ci Covid bi président Ousmane Sonko dem na pale wax ak Macky Sall mais ba pare Ousmane génn déclaration yaa ngi fi ni man li may bañ mooy ñu jël fital teg ko sama bopp di négocier ak man Ousmane bi mu génnee tamit ci kaso bi ah. dafa am courage jàkkaarloog Sénégalais yi ni leen ay négociation am na indiwul baatu dialogue baatu négociation la indi baatu négociation mu ni liñ négocier dëppoowuñ ci ci dara maanaam jubóowuñu ci dara leeral ko ba mu leer lim point yëpp ba mu leer yaa ngi dégg ba pare wane ni moom musul jóg di sàkku waxtaan Macky Sall mii ndeyi mbill gi mu yoroon réew mi moo dem ba amatul fu mu jaar mu xam ni xal wi tàng na ci loxo mu wiccax ko yaa dégg lii mooy les vraies information leneen lu la waaye wax nag ci commentaire la nekk xam nga ñun li ñu amal solo tey te ma bëgg ñu wax ci mooy atteindre na suñu objectif xam nga suñu objectif soxna may mun a xam mooy la mooy tey réew mi yàlla dogal na parti bu ñuy wax Pastef moo koy diriger réew mi yàlla dogal na et ses alliés non yàlla dogal na président bu ñuy wax Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy fanaan ci pale bi yàlla dogal na première ministre bu ñuy wax président Ousmane Sonko mooy mooy coordonner le gouvernement kon ñun atteindre nañ suñu objectif li amoon solo mooy nga fexe ba atteindre sa objectif te atteindre nañ ko ci dignité ci courage ak ci détermination waaye xam nga bu xam nga moom taxaw di ñu naan euh, waxtaan am na waaye d'accord ñu ci dara ah. euh, loolu c'est sa part d'interprétation en tout cas ah. xaw ma d'accord nañu xaw ma d'accord ñu mm-hmm. waaye waxtaan bi jur na lu bare bari jur sax mm-hmm. juboo diggante euh, Ousmane Sonko euh, ak Macky Sall ba jur sax familiarité donc di ñu naan waxtaan boobu jurul dara. Euh, ñun ñun mënuñu lo loolu dañ lay déglu rek waaye mënuñu koo nangu. may mën a yoo xam nga ni man. waxtaan bi lu mu jur bari na de. waaw mais waxtaan. xam nga hmm? waxtaan waxtaan mën ta ñàkk ci réew mi mais ndax li mu jur xam nga ñun demuñu ñëwoon fañ doon waxtaanee yaa ngi dégg ki nga xam ne mooy sunu leader ñu gëm ko te lépp lu ñu mus a wax teg nañ ci suñu bët lim ñu wax rek lañ mën a jàpp. Hmm. ndax mosuñoo wax loo xam dañu ko vérifier mu nekk ay caaxaan yow xam nga ni courage mu ngi tàmbalee ci fi contexte bi tolloon nga génn ni ay négociation am na. assumer d'accord ñu ci dara waaw ba pare teg waaw loolu lañ gëm ñun. d'accord xam nga ñun àgg nañ ci Ousmane. lim ñu wax loolu lañ gëm léegi nag yow di ko gëm wala doo gëm. d'accord ñu ci dara mais après. waxtaan bi jur li lay wan ni naa la jox benn waxtaan bi jur na loi d'amnistie. Macky Sall lan la bëgg. waxtaan bi jur na soutien. mais Macky Sall logistique man damaa bëgg ñu ay fee. xam nga fee mooy fee <laughs> ah, ah. président Macky Sall nee na bëggoon na. fee mooy lii may waaj wax. Ah. mooy bëggoon na président Ousmane Sonko bokk. li bëggoon mooy dàq élection yi pour Sonko nekk candidat ak Karim Wade. soo Sonko déggoo mu ni ba mu ko ko waxee dafa bañ ni ko man tànn naa te ki ma tànn sama nawle la te sama kàddu jiitu na la loolu mooy feey yeneen yi nit ñi di wax nag kenn ku ci nekk ak interprétation bi nga ci non am na ci ñu d'accord mais ñu d'accord y a eu de très bonnes avancées de très grandes am na ñu d'accord ci lu bari lu ñu d'accord te loolu mooy essentiel li nga xam daal jàpp naa ne d'accord nañ ci hmm. mooy ñu organiser ay élections yu apaisées élection yoo xam ne dinañ am koo xam ne dina ko def ci ci bu façon bu transparence tey loolu moom ay fee la kenn mënu koo weddi loo mën a wax élection yi mooy élection yi gën ci histoire Sénégal parce que yombal nañ nit ñi ñu dem voter à temps réel résultat yi ñu joxe ko ci en temps mais mais avec le. avec loolu daal laa gëm ah. accord laa mën a jàpp man léegi li ci li ci diggante bi nag man mënuma cee hmm. dugg parce que maîtriser wu ma ko. Hmm. kenn yéen ñi ñi ko maîtriser ci yéen kay.